Philippe mi ngi juddu ci quartier périphérique bu Pikine ginaaw ray nord bi gané ci aduna ci fanweeri fan ci wéru septembre atum 2005 goné gi am fuk ak juróom ben at commencé jaaxal ay way juróom ndax ab ingénieur la am det en tout cas goné gi mujjee défar defar ay drone ak ay voiture ci ay pièces détaché yi nga xamante ne for ko ci mbalit yi Philippe di def ba yegg fi ben benn jour laa toog jéeg rek commencé des affaires ci télé ma commencé te intérêt tu commences ci commencé si fini la commencé dem carton Cela nous a fait technologique C'est mon inspiration comme ça vous di si point bi dañuy comme genre vous poids lori ma ci la continuer yeneen pièces yi raay bi si kii gi wàcc boo boo si raay bi foofu la ñu wute pièces yi bu dee comme genre avion bi kak kii bi si drone la jógee lampe yi tamit si drone la jógee mais carton bi marché bi fa yaa dem bu ma ci looloon daa xaw a daa xawoon a amul woon doole ni si laa ko jël modifié oto yi moom soxloon na commande beeg bi bu avion bi ñaari pëcc soxla commande te commande fi muy jaar daa kii marché Salem daa seer daañ jàppale ma jënd matériel yi ak pièces détachées gannaaw ba mu xamee ni ci lii muy yëngu doon lu am solo lool pour carrière am di sàkku ngir rekk mu woyal ay njàngam ba mu am bac ñu door koo dugal ci école de formation ci wàllu wàllum yi di métier bi jàng moo ko dama doon ingénieur ingénieur professionnel maa ngi woo gouvernement pour ñu mun maa jàpp si li may liggéey. Lamine Lo nekk jegeñaale ay waajuram moom miile yàgg na topp gone giile ba muy commencé di defar li Covid bi moment bu ñu tëjee école yi. si laay dox dox dox dox ba da koy gis ba ma ko gisee maa ngi koy fekk mi ngay défar ben euh, avion. yoré commande bi diko manipuler ba avion bi di juk temps en temps di xol mu mu may woon ay avion camion affaire yu muy liggéey mu xamni ki nak euh xalé la mais suñu borom amna lu mu def ci mom té liko ko rek moy ay moyen ay waajuram Pascal ak Xadiña nekk ci famille bi nga xamante ne ndóol bi fës na fa lool di woote ab wàllu ngir rek ñu dimbale leen ndax xale bii de mu woyal ay njàngam ñu dugal ko ci école de formation ci domaine bu mu sàkku affaire bi xawoon na ma digge si par surprise mais affaire dafa nekk loo xam ne moom dafa nekk bëgg-bëgg si moom loolu moom la quoi mais bu njëkk bi mu koy commencé di recycler ay benn benn yi nii xawoon na ma digge comme surprise daal bu njëkk mais au fur et à nga xamante ni foofu la moyentul quoi ma ko muy dem ndank ndank quoi parce que affaire aussi yombul daal yombul day rassembler fii jële fii jële fi jele jele fa lay doog a rassembler pour mu doog a nekk quoi képp koo xamante ni daal bon mon nga cee dugal sa loxo pour gungé ko pour mu réussir ci lu mel nii amul problème mon ngaa ñëw def ta yàlla tax xam nga nit ku ne door bi la yàlla may ci loolu la ndax moom ba mu ba léegi man ci lii laa gis muy def bu jàngi jee ba wàcc lii lay def bu jàngi jiwul tamit bëgg-bëggam yëpp daal lii ñu xeel ci lan lay dem ëllëgam mooy mu continuer ci mën a jàpp ba mu egg fa rek soobee suñu borom bëgg nañ ko